sëriñ nee na li mu bëggoon ma bëggoon a lépp gis naa ko ci yéen li bëggoon a dégg lépp dégg naa ko ci yéen tey jii déglu ci kaw suuf kuy dund boo sañoon suñ jeetaay ci bokk wax wax ko ba noppi waaye loolu mooy mooy mooy mooy mooy xasida yi xasida yi xasida yi mooy sëñ bi xasida yi mooy sëñ bi ku bëgg a xam sëriñ bi da ngay ne ci xasida yi ku bëgg sëriñ bi da ngay ne ci xasida yi fonk xasida yi de ku wut sëriñ bi da ngay ne fonk xasida yi sëñ bi mooy sëñ xasida yi mooy sëñ bi xas yi moo nekk moo nekk diggante moo borom digg moom yonent bi digg ma boppam xasida yi mooy sëriñ bi kon liggéey bi yi réy na liggéey Sëriñ Tuubaa réy na lool ndax luy luy lu baax rek luy lu baax rek nañ ca nekk nekkal ko ca mu dib liggéeyam waaye xasida yi nag mooy liggéey bi mooy moo moo jiitu ci liggéey bi mu jiitu ki liggéey bi bu doon xare bu doon bu xare ña ngi xam ne ñoo jiitu xare bi topp seen gannaaw ñuy jéem di seet fu xarab fu yéefar yi toll bu fekkoon ab xale la kon jàngi xati fonk këti xasida yi xam xati xam xati xasida yi bëgg këti xasida yi liggéey këti xasida yi kon ñooy jiitu ci kanam xasida yi mooy sëñ bi buñ ko xamee ak buñ ko xamul xasida yi dafa jar jóg jàngi xam-xam xam-xam ñëw ñëw nag ñëw nag nekk ci biir xasida yi di liggéey xasida dafa ja dafa aajo jàngi xam-xam ba am xam-xam ñëw nag jébbal si lépp xasida yi nekk ci bi loolu loolu loolu laa joon dégg ngeen wax loolu loolu benn murit bu ne bu xamee lu xew dafa war a daa jóg jàngi xam-xam jàng ba ne ar dellu si nag nekk ci xasida yi nekk ci sëñ bi dégg ngeen wax de loolu la laajoon loolu la laajoon jërë ngeen jëf damay damay yéen yéen yéen dama leen di firi damay firi rek waaye def ngeen lépp waaw nii rek la loolu loolu nag du yéen sëñ bee sëñ bee sëñ bi moo ci loolu moo leen ci moo leen ci nargan moo leen ci wommat loolu du yéen sëñ bee waaye wax baa ngoo xel loolu loolu loolu loolu mooy dama ne am na góor gu bari xel ba muy gënee di gone di ndaw ñuy waxtaan di déggoo lool bu waxtaanee baag ci si mbir di ma ne ah wax ñu ko waaye diw kooku daa xamul li xew rek mu ne waaye bàyyi li nga wax xam li xew a jafe <laughs> waaye yéen yéen ñi xam li xew <laughs> bu ngoog de noonu la de kon jërëjëf jëf bu ñu ñaanal nga def bu ñu ñaanal nga na ñëpp tàllal seen loxo baax na baax na waaw waaw waaw moom kay gën dañu xaw a yeewee ko rek dañu yeewee ba yoon am rek ñu ne ci buntu buñ jëmee dañu yeewee إلهي الذي قد